xawaay bu njëkk bi mooy adduna dikk bi mu ci adduna adduna di kërub yu ñu tere kese yuy lore di kërub yu ñu santaane trop te seytaane ngemb waxtu woo jëmee ci lu baax rek seytaan dal di ngemb raxasu waaye lislaam moom dafa yaatu te leer lu ci nekk daf la wax rek na koy moyoo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 shariatul islam nag ñëw leeral li ñuy tere te muy doore yépp leeral itam li ñu sant doomu aadama seytaane mu day bëreeg turu yàlla kon nag luy bëreeg seytaane war bari moo tax si kar turu yàlla daanu ci ñëw am solo am na ay yoon nag ni koy war a jaare kon boo jógee njëkk bi muy dundub nit ki ci àdduna ëmb lu bon ëmb lu baax ñuy bëree ci moom bar saxa ci tegu nit ki buy génn àdduna génnee àdduna jeexeeti dundinam lu ca bare bare dana taq ci aw ga mu ay tache yu yu xonq yii yu bulal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 ki dàq way mooy jiitu ñi mën a way ñëpp topp ci ñi mën a fecc ñëpp ki dàq fecc mooy jiitu ñi des topp ci ñi mën a tudd yàlla ñëpp ku ci dàq tudd yàlla gën ko cee bari la mooy jiitu ñi si des ci kooku étape la maanaam jaaruwaay la xam ngeen euh, yëmal am taxawaay ba dañu wax juróom fukki junni at xam fi mu kan xam seen alfa sanatin ñi nga xam ne dañuy wax naan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 muy innama almuminuuna alladina ida dukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluuna alladina yuqimuuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiquun mun ulaika hum muminuuna haqqan lahum darajatun magfiratun wa rizqun karim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 kon seen xel day dal dem ci bi ñu tuddee yàlla rek dal ci tiit xam yàlla ak xam ne xamuñu lu muy mujjee ndax nit dana nekk di jaamu yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba seen saa mu jàdd def jëf jëfi waa safara suñu borom boole waa safara nekk noonu safaan bi wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imaanan buñ jàngee aaya alquran mu dolli leen naka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 li nga góor góorlu li nga fiy jéggalu li nga fi moy li nga fiy fàtte li nga fiy sàggan ba la nga mujje ba nga xam ne buñ xisaabee say jëf maara détail yaa ngi dem ca safaan ba suñu borom kat yaa ma def nangam yaa ko njëkk a dogal te boobu ñëwee ba suñu borom maanaam ñu ngi ci jamono kon jamono ji mujj bu saagi taxaw ak ja njëkk ba mu bindee lim njëkk a bind ñooyam ci moom lépp la tiimandoo comme noonu ma ko waxee rek kon wakkiilu borom tabaraka xam gi nga xam suñu borom teew fu ne borom mu ngi fu ne loolu du tawxiid fu nekk nekk fi suñu borom waaye suñu borom nekkul boo moo nekk fépp dafa mel ne ko béréb ndax fépp foofu nga wax suñu borom a ko bind te ba mu ko bindagul bi ko bindee ba noppi na nekkee woon la nekkee randuwul kon suñu borom tabaraka wa taala doone mu ngi fépp da naan fépp te ngi fi suñu borom waaye noonu nga xamee ne amul dara lu fàdd walis yàlla loo xam ne lii nekkul ci gisub yàlla ak ci xam-xamam ak ci ak ci léppam noonu nga xam ne day teew ci sa xol teew goo xam ne day mel ne yaa ngi jàndoog moom ndax dañ koy yëpp yëpp goo xam ne ci kaw sa sellal ci jaamu yàlla ak yàgg ci loo ci ci rek wayu ci yàgg ci mooy yi ci gën am njëriñ mooy ci li gën a nga xam nag gise nga noonu mooy tax nga wakkiilu ci moom da ngay mel da ngay jànloo kàttanu suñu borom gi muy def nga xam ne leneen lu mu deful rek loolu du mën a sotti lu mu deful loolu du mën a sotti day teew ci sa xel teew ci sa xol ba fees la dell yow ci sa bopp jafe na jox yàlla sa bopp ba nga xam ne benn tarfatal ay ni doo ko def lenn dul lu jëm ci yàlla ku mel noonu ndox da nga sañ ne kulli saara lillaahi am na ko fi waxoon ne fa kulli saara lillaahi xamu ngeen ko dangeen ko xam jàng ngeen ko ci xasaay yi ba tàyyi ah léppam la jox yàlla ba joxul boppam lenn lenn lenn lenn joxul len len lenn lenn léppam yàlla léppam yàlla moo tax suñu borom puukaree woo ko ca kanamu gaay yàlla yu baax ya baaxaa bi allahu alkiraam alxurra wa bi baqaa'i annabiya sarra léppam guddeem bëccëgam ba ci yere yi muy sol ba ci ndox mu muy naan ba ci léppam yàlla ginnaaw mu ngi fas yéene noppal jëmm ji ba bu noppaloo mën a jóg gën gën a mën a jaamu yàlla loo tax mu ne naw mi ibadatu rabbin la sharika lahu qalbi yudabbiru ayan tuurisul xikama noonu mu def ba seey ci boromam ba mel ni ni suukar di seey ci ndox moo tax mu ne yejudu ni yejudu ni inda malikin muqtadir kullu waliyin dil jinaani yabtadir bépp wàll lu mu gaawantu gaawantu façon borom la ma sekk ma toog dafa am mag ñu nekk li ne dafa masoon a laaj kën def lu ci ndox fekk ñu suukar sëpp ci ndox mi ba mu seey fekk boobu benn naaru gànnaar ci ni ko mag ñi daan nettalee naaru gànnaar bu fa nekk benn taalibe dënnam rëcc ne ko wallaahi mbakke yàlla nga loolu diis fi moom bi nga xamee ne suukar si seey na ña fa nekk ñëpp ku ne mën a la mosal nga mos mu ne la teqaleel ma suukar si ak ndox mi nga ne kenn mënu ko suukar si ndox la ndox mi suukar la bu fekkee ne dañoo dellu ci zahiru sharia ak ci fiq rek dam naan bokkaale la njuumte la loolu sëñ Tuubaa waxu ko defu ko woon ñàkk dégg la nit ki boo xamee deret ji daw ci moom dafa jaxasoog yàlla xelam ni muy xalaate jaxasoog yàlla jaxasoog yàlla ba nga xam ne lépp léppam yàlla la léppam yàlla la loolu taxoon ñu rey xallaaj loolu taxoon ñu rey ibnu qas moo taxoon ñu rey ibnu sabin moo taxoon ñu rey sihrawardi lañu yëg seen xam-xam agul ci mën koo misaal ba mu leer lu tax sëñ Tuubaa ne damaa dëkkaleeg dëkkaaleeg sans borom mooy lenn lu dul lu jëm ci yàlla rek ba ci xef yu ni bëtam dara du ko raf du raf lenn lu dul lu jëm ci yàlla moo tax mu dëkkaaleeg boromam ndax suñu borom kenn du dëkkaale moom di ko bàyyi tarfatal ay ni nga di ko wëlbati ko jublu ci leneen ndax nee ñu bët boo xamee ne nit jublu na ci suñu borom tabaaraka wa taala ñeen fukki at benn fraction seconde mu geesu leneen la ko faat ci ba mu gestoo li ko raw moo ëpp la mu amoon ci ñeent fukki at yi ndax yàlla loo ko gën a jege rek sa jëf ba gën a tuuti mooy ëpp yi gën a rëy na ko gën a jege rek sa jëf gën a kon bu ne jaawartu bil furqaani rabbil muhim dama naan yaa rabbi yaa wi waxal sama dëkkaale lu doy waar a ngoog lu doy doy waar doy waar وإذا تليت عليهم وزاد آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة mooy ñi nga xam ne jox nañ julli dëgg jaamu yàlla yépp dañ mu gis julli moo tax mu nekk azamul ibadat yi muy jaamu gi gën a ci jaamu yi julli woor a ngi ci ndax booy julli doo lekk doo naan julli jàng al ak ndax da ngay jàng fatiha jàng ay saar julli salaatu ala nabi ngi ci ndax booy taaya da nga salaatu ala nabi da ko def julli sikar tur laa ngi si ndax bu fekkente ne rokoo nga wala nga sujjóot sàbbaa yooyu ngay sàbbaa ak ñaan yooyu ngay ñaan yépp ay tur yàlla la yoo xam ne yaa ngi koy sikkar julli asaka ngi si ndax seeram ngay jox asaka ndax fi nga kabare moomatoo sa lenn lenn lenn moomatoo sa benn cër moomatoo sa gënn yëpp sañatu lépp loo def rek sàcc nga mu dul julli sàcc nga si julli gi sa xol ak sa xel sa lépp dafa war a muy sàkkare ci suñu borom tabaraka wa taala woor a ngi ci asaka ngi ci eh, tu tu tudd yàlla ngi ci salaatu ala nabi ngi ci lépp ngi ci ba ci aj aj a ngi ci julli lu tax aj ba nga armale da ngaa contrat ak suñu borom julli bi nga armale da ngaa signé contrat ak suñu borom tabaraka wa taala kaaba gi nga jublu kii nekk fa di ko wër yow nga jublu ci ka nga xam ne sell du yàlla du lenn yàlla waaye suñu borom moo ko digle nga fab sa xol ak sa xel ak sa yitte jëmale ca ngir yàlla taxaw taxaw yàlla kon lépp luy jàmm yàlla azamul ibadat allazina yuqimuuna salaata julli boo koy def adduna li ci ko si xol maa razaqnaahum yunfiquuna suñu borom dafa ne inna llaaha ashtara min anfusihim wa amwaalihim bi anna lahumul jannah yaqtuluuna fiihaa wa yaqtuluuna wa'dan alayhi haqqan fit tawraati wal injiili wal qur'aani wa man awfaa bi ahdihi mina llaahi fastabshiruu bi bay'ikumul lazii baaya'tum bihi wa zaalikal fawzul aziim yàlla suñu borom tabaaraka wa taala dafa ne jaay na àjjana jullit ñi liñ ko jënde seen bakkan ak seen alal seen bakkan ak seen alal la leen jaayee ajjana kon nit ki jullit moom moomatul dara bu yàlla soxlaa rek bu dee xare na dem jaayi bakkan joxe bakkanam yàlla bu dee jullee jot na wàcc lépp lu mu doon def ndax lépp bu julli gi jotee lépp lu mu doon def bàyyi julli gi dana layoog loola yowmal xiyaam inna la alal day layoog boroom te alal ji may jaay suñu boroom lu sell lay doon ndax bu ca benn fiftin bu léwul nekkee suñu boroom du ko nangu maraq naam ñu faqoona nag dafa am solo ndax jëmm ji li mu fàggu ci coonoom ba mu lew ko mu moom ko dañ ne al maalu shaqiqu ruux alal dafa sax ci xol mooy mbokkum ruux nit ki ko dindi te dara taxul lu dul ngir yàlla rek def ko ci yoonu yàlla ak nu mu mën a demee rek da xam ne sellal na ko def na mu mën a dafa dagg ci yaramam jox yàlla ndax alal lu for ci xolu nit la alal dafa sax ci xol kon ki koy joxe ngir njëstal dana layoo ëllëg layoo bu metti li tax li tax ñu araamal laaj dañ koo daganal nag li darorit maanaam ngir lor contrainte tax nit ki nga laaj alalam bu la ko joxee ngir njiskal li mu la jox léewu la bu la ko joxee ngir puukare li mu la jox léewu la bu la ko joxee ngir bu la ko joxee ngir kersa daf la rusa bañ a jox li mu la jox léewu la bu la ko joxee ngir ragal la li mu la jox léewu la ñooñu nag la suñu borom ne ulaayka humul muminuuna xaqan ñoom ñooy ñi gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg waaleykum salaam ñooñu nag kon ñoom gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dëgg kon lu ñu wuuteeg ñi ci des ak lu ñu alu leen gëm yàlla googu di defal ëllëg lu mu leen di jox mu ne lahum darajatun inda rabbihim wa magfiratun wa rizqun karim fa yàlla am nañu ay daraja borom daraja mooy kan borom daraja ci kim am daraja fi moom bu naroon a lakk kii mu ne ko bàyyi ko mu bàyyi ko bu kii amee noonu kii xaq mu ne suñu boroom fay ko mu fayal ko ko borom traité gis ngeen am na si yoo xam ne waxtaane woon lu ci waxtaan nañ ko ba tàyyi euh, Seydina Abbas ibn Abdul Matib Abdul Talib bi nga xamee ne Seydina Omar nga ñaan ci barkeem ci darajaam gis ngeen yontu yàlla noo génn jëmm la mu ñaan suñu borom far li mu bindoon lépp ci mbën labal leen te kenn nit dong la Moussa alayhi salaatu wasalaam ñaan suñu borom ne kii def ko yonent mu daal di koy def muy yonent ku naan kenn mënul yóbbu kenn ajana xanaa def nit yonent gën a jafe yóbbu nit ajana kon ko am daraja fi yàlla tabaraka wa taala loolu suñu borom def ko mu def ko incha allah ndax day fekk mu loo xam ne nar ko ndax li ma waxoon sànq ne suñu borom ñëwul ci jamono. xam na lay amee lépp mel na sotti moo tax inda rabbihim lahum darajaatun inda rabbihim moom magfiratun wa rizqun kariim magfiratun wa dafa yemewul njëgal gën a mate rek xéewal gën a bari ndax nit ki balay gën a mën a bànneexu ci xéewal yi ëllëg bàkk na mu gën a sete ci bàkkaar na xolam gën a set ndax booba la xolam di gën a nangoo dékku leeri suñu borom tabaraka wa taala magfira boo gisee lu set lu mu set set set set ba muy set ba agi ci dayo set yére lay doon waaye ruu ak xol fa muy àgg ci dayo set mooy ku gën a texe ci li yàlla bind mooy sallallahu taala alayhi wa sallam ak ñi ko doon wa risqun karimun nag yaatu ne moom lu bare na ci biir waaw xeet suñu borom dafa ne maa tashtahi l-anfusu wa talazzu l-ayunu ne wa ida raayta samma raayta naiman wa mulkan kabira boo gisee foofa àjjana da nga gis ak nguur gu mag ëpp na xéewal ëpp na teraanga nguur la ah nguur moom da ngay waar tubarkàlla sant yàlla yàlla na ko suñu borom defal yàlla na si ñoom ko moom waxtu yu guddi wu la ñu ko dama xaw a guddee tàmbali ah dama ma ay kilo waaw kon nag imaan boobu ñu waxoon imaan moom lan la deme wax nañ waxtaan nañ ko ay yoon li ñuy wax ne aji mat ji ngëm buy jéggi siraat te gaaw a daanu ci safa bàkkaar mooy dem ba ca cat la nga xam ne tuuta ko tee mucc ki nga ciix luy xew daf lay lor li la lor li lan la réer gi ñàkk xam gi nga jëm dëkk sàngam xamuloo yoon wi ngay dox rek ndeketee wan nga gannaaw dëkk ba di dem rek réer googu ni mu lay lore moo lay xamal réeruk loruk réer moo tax euh, xam ci boppam ak lépp looy ni ngay woore boo dee tërbiyewu fexeel ba laajte ba xam ni nga tërbiyewu boo dee tarqiyewu noonu gépp jaamu yàlla ak jëpp jëf ju baax nañ ko fexee xam ba noppi ndax ki ko xam jëfam dafa ëpp doole ki ci des ki ko xamul ak donte ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am nga tuyaaba ju yaatoo yaatoo yaatu itam lu tax shaa'ir bi ne qum lil muallimi wax fihi tabjila kaada al muallimu an yakuna rasula yonent yi yëpp dañ fay ñëw lu dul ngir jàngale rek xamal nit ñi yoon wi ñuy jaar xamal leen yoon wi ñuy jaar ba mucc fii ak ëllëg naka noonu ku mën a awliyaa yi itam noonu rek leen ko xamal doomu aadama bi nag li nga xam ne mooy gànnaayam mooy itte itte li tubaab di xam ne moo la gën a way gën la farlu ci jëf du xàddi mukk daf lay raw ba faw lu ñu naan lépp lu la waay gañee wax nañ ko ay yoon ba koy def yaa ngi janloog moom nga naan bu subaa ma def ko wala bu ma amee jot wala danaa ko def danaa def ni moom kii dogu dëgg dëgg dëgg melaw woowu lay amee melaw mooy li mu war a def def ci dal di ne kërëb rek jublu si def ci jublu te du ko bàyyi mukk bu yàggee rek dana ci àgg foo xam ne ki xamul kañ la tàmbali woon dana ko jaaxal na mu defee ba àgg ci lii mooy nit ki dem ba nga xam ne fóot na xolam ba mu set ba nga xam ne ku mu dajeel rek ngay dox xam ne ñaata at nga dese ci sa dund wala ñaata weer wala ñaata fan xam ne yow sa jib yi texe lañ ci bind wala texee di ki góorlu rek wàcc adduna bi jublu yàlla lépp lu mu dégg ne baax na wala mu foog ne baax na rek mu nekk ca lépp loo xam ne nee ñu baaxul rek mu wattandiku ko boo ci yàggee rek da ngay mujj am wilaay wala yu doy doon sax kon itte ak muñ ah muñ nag ci la lépp nekk ki la gën a mën a muñ rek daf lay raw faaw doo ko jot ndax dañ ne as sabru nisful imaani kon ngëm euh, maanaam diine genn wàll gi mooy muñ muñ mooy genn wàllu diine kon ku la gën a muñ rek dana la raw naka noonu am yërmande gàttal naka noonu boole ragal yàlla ak ndax loo ragalul rek yàpp nga ko loo ragalul da koo yàpp kon boo ragalul yàlla nga ne da nga koo yàpp yaakaar itam koo yaakaarul ko man da nga wax ne doylu nga walis ko te suñu borom kenn doyluwul walis ko kon moo tax boole ragal ko ak yaakaar ko mooy mottali ngëm da ngay da ngay ragal yàlla dëgg-dëgg ragal yaakaar ko dëgg-dëgg yaakaar gannaaw loolu jikko yi ànd ànd tànnal ñi ngay ànd àndal ku baax boo dee ànd ak ku baax léegi nga baax boo dee takkoog ñu baax da ngay dal di baax boo dee ànd ak xalil yi nit daal diineem mooy diine xaritam ba tax sëñ bi ne waru fuqatun ci bi muy lim ñi nga xam ne ñoo dugg ci yoon tërbiya ak tarqiya mu ne waru fuqatun waxi ixwaanu law himamun war na bokk na ci rufqa maanaam kuréel boo xam ne dañoo bokk ay bëgg-bëgg te lépp di lu baax rek ñuy soññante di wétlante di dàggante kooku lu farata la itte yu mat itte mu teg ci balance yomal xiyam bu ñu dee peese jëfi jaam bi mooy jikko ju rafet jikko ju rafet moom la ñu njëkk a peese te nit dana raw moroomam te rawewu ko rakkaa yu bari rawewu ko koor bu bari rawewu ko liggéey bu bari rawewu ko dara dul jikko ju rafet xam jikko ju rafet moom moo gën a mën a xett li nit mooy jox valeur jëfi nit ki nit dana julli ñaar rakka kee julli fee téeméer rakka borom ñaar rakka gën le ko ndax daf ko gën a rafet jikko daf ko gën a rafet ndax suñu borom tabaraka wa ala dafa am ay bëgg-bëgg bi jiitu julli kag yéefar ak baahi maag ndog ment ak garab ak doj ak lépp la ko bëgg mooy bind gi mu ko bind muy jaamam di ko sàbbaal fu mu toll ñaareelu bëgg gi mooy ñi nga xam ne yërëm na leen teg leen ci yoonu jub ñuy jullit ñi ñetteelu bëgg gi mooy ñoom bëggoon ca azal ba mu bindagul dara yàq xaram lépp loo gis suñu borom bind ko rek bëgg gi mu ko bëgg maanaam li mu ko bind muy alalam loola di ko sàbbaal bu fekkente ne yàq nga ko danga am bàkkaar moo tax tooñ donte yéefar nga tooñ dangay am bàkkaar moo tax ñax sax nga romb ko dagg ko te amuloo ci soxla dañ la ci bindal bàkkaar ndax sàbbaa ba mu doon sàbbaa wàññi nga ko te suñu borom mi nga xam ne moo ko bindoon muy alalam te bëggoon bu bëggoon ko bind suñu borom kenn du ne ko lu tax nga def lii déedéet gannaaw gis nga buñ seetee ni mu gënalee nit ñi ci àdduna ci wërsëg ci wéri garam ci kattan ci rafetaay gënante ga rawate da nga mënula am gàtt xam-xam la suñu mboom lu ko soog mu def te wul dara te yéemul dara mu ni kon léegi salabul ixtiyaar yi am na bu ci te yi yomb na gis moom bari na mu ngi wëndeelu kon da ngeen daal di xam ne sifaatu sadiqul muridi mooy yooyu léegi nag mu ne man huwa cheikhu tarqiyati wa tarbiya cheikhu euh, tarqiya ak cheikhu tarbiya cheikhu tarbiya mën na nekk cheikhu tarqiya ba noppi di cheikhu tarqiya itam cheikhu hmm? tarbiya ci moo tax cheikh waxtaan leen ko ay yoon nit la koo xam ne day xam xoli nit ñi xam seeni jëm xam seeni bëgg-bëgg xam jamono ji ak meloy climat yi ak suuf si xam dox biddiw yi asamaan si ak li muy jeexital ci kaw suuf si ak waa suuf si xam ko na ci ci cheikhu tarbiya cheikhu tarqiya moom seytaane daf koy ragal waxam rek nga dégg ko day dindi ay ayib yu bari ci yow boo taxaw moom te digalu la tere wala waxu la dara sax da ngay dal di sell mooy ki ma waxoon ci xaal mooy cheikhu tarqiya xaal ah. mm. Eh, ñetti laaj ngeen waxoon de léegi mu ngi bëgg a bëri te taxoon ma foog benn seex eh, kii wax nañ ko ba noppi kii nee hmm? Hmm, day leer lu bay di sàkkara ni rabbi laaj nag kuréel boobu ban la <laughs> ah, waaw waaw waaye ndaw ah, nag lu ci xam <laughs> sëñ bi wax ay waxam <laughs> Eh, digganteem ak boroomam di ma ko laaj man en ci ci zahir bi nee na daal suñu borom sant na ma ci kuréelam ba mu kuréelam ba mu tànn suñu borom sant na ma ci seen kanam na mu waxoon ne suñu borom eh, xa puukare woon na ma maanaam bàkkoon na ma baaxa bi yàlla alkiraamul xurra ci xam ñooñu bu baqaale nabi sarra te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëkk na ci dund gi may dund ci àdduna di ma fi nekk ba ni ma fi jóge mbégam la mu ne raamu ziyaarat yi ñoom kuréelu yàlla boobu dañoo sàkku nañ ko ziyaare ñoom ñëpp jëng ngir yàlla jaam bi dana àgg ci ngërëmal yàlla foo xam ne muy béréb yi muy jamono yi muy garab yi muy doj yi yëpp ay sàkku ci moom tuyaaba di sàkku ci moom njëggal ak suñu borom nit dana àgg foo xam ne bërëb bi mu jullee wenn waxtu wala naafila béréb boobu daf koy puukaree ci bërëb yi ko wër yépp ba yomal xiyaam te dana ko see ba yomal xiyaam mu seedeel ka ko kon yàlla si boppam moo am doole moo foor foor goo xam ne ko ci am dara ndax tuuti yàlla xaj ci jaamam tuuti tuuti tuuti tuuti tuuti yàlla moo xaj ci jaamam waaye li gën a tuuti ferñeent wa gën a tuuti atom ku ko ci am daanaka yaa moom àdduna boo nee garab gi kaay mu ñëw yàlla nag dafa wutale jaam yi am na ñoo xam ne dana leen may ba noppi leen ñu sañ jëf ak ñoo xam ne dana leen may ba noppi te tere leen ko ak ñoo xam ne daf leen a bàyyi rek bu leen neexee jëfe bu leen neexee ba ñooñu nag buñ ko nëbbee. waaw waaw kooku loolu la woon. waaw mhm. mooy laaj nee xam-xamu tasawuf daal ndax fan yi sax mi ngi daal ñi gëstu ci tasawuf mhm. bal dal na imaam Malik daal dal na imaam Malik waaw nee na weddi na tasawuf lool maanaam waajooju moom euh, mu ne tasawuf li yàq mu ëpp lu mu defar muy laaj nag mhm. euh, ku mel ni sëñ Bay Saar mhm. ak euh, Cheikh Ibrahima Fall ñoom ci tasawuf lañ nekkoon wala déet léegi affaire tasawuf la ñuy nit ku dal daa si mi mu firagoo ijji kaam mi bind kaamilam nga taxaw fee naan lim bind a bari na yàq duma la wuyu duma déglu sax li ngay wax duma déglu yow jàng ci école arab yi arabe rek ay baati arab nga jàng jànguloo fiq jànguloo tawxid jànguloo tasawuf jànguloo leneen nga jóge fii dem ci naar yi nga xam ne amatuñu ngëm naar yi gëmatuñu dara lu ñu xamul weddi ko nga ndikk di ko di coow ñoo ñàkk xam imam malik moom ku toll ne imam malik nga laaj ko ñetti question du la tontu ci benn lu tontu lu jub dal ci kaw fële Ahmad kon warul dal ci Malik rek Hanifa dal ci Shafii dal ci imaamu Ahmad Malik dafa ne wa man tasawaf walam yatafaqqah faqad tafassaqa walam wa man tafan jamaa baynahuma faqad tazan wa man jamaa baynahuma faqad taxaqaqa loolu la dañ daan dem ah imaamu Ahmad ak ala xam bu bari boobu ak imam Malik xam-xamam bu bari boobu dañu daan dem ba ci kanamum Seydina am ñuy bëf fi kanamam mhm. bi limaam Ahmad ibnu Hanbal daan ñëw di mhm. waaw ndax maaruful karxi mi dafa xam mu ne ko ci lu ñu dee xam-xam lu bëgg a mel ni moom yëruñu lu bari mhm. gisuñu lu bari tuuti lañu gis naar yi nax leen yéen sax sëñ Tuba nekk El Hadj Malick nekk fi sëñ Mbacke bu sa nekk fi Cheikh Sidé nekk gànnaar ak Mor Galaay ak ñeneen ñi ma tuddul ak ñu bari dara itee lu doon lu dul lislaam téere lislaam yi rek lañu jeexal seen dund gi gépp ngir yàlla ñoom ñu bëgg fee juddu am juróom-benn at dugg ci lekkoonu arab jóge fa dem fi am fa ñaari at ñetti at ñeenti at indi diplôme boo xam ne danga nga bëgg a jàng géographie bëgg jàng histoire bëgg jàng science bëgg a jàng mathématique bëgg a lu nekk ay algèbre ak yu nekk dal di dikk xam toll ci ku am certificat xam ne da ngay lire rek xam foofu nga toll ngay dal ci kaw alim boo xam ne dafa jeexal dundam képp ci gëstu xam-xam ngir yàlla ragal yàlla xaq tuqaatihi hmm. yooyu caaxaan ñooñu ku leen déglu sax léegi sa bopp yàqu caaxaan mënu la toll noonu caaxaan dëgg ngóob ma wax naa imaamu Shafii ku ñuy wax asheybaanu raayi hmm. annaasikul badawi imaamu Shafii daf daan bóof fi kanamam te jàngul dara buñ ko waxee mu ne kii su borom dafa koo defal tawfiix ca li nga xam ne xam nañ ko te amaguñ ko hmm. kon borom ñeenti ngir ñooñu ñëpp la dal kon ndax Malik gënu la gëm Shafii tasawuf Shafii gënu la gëm Ahmadu tasawuf Ahmadu gënu la gëm Abu Hanifa tasawuf ñoom ñëpp kenn ku ci nekk limaam Ahmad ibnu Hanbal bu daan jàngale ci Baghdad Abu Hamza al Baghdadi bu fa nekkee bu demee ba am sikki sàkk ci masal daf ko wax maa taqul fi haada yaa suufi yow suufi bi la wax ci kii bi ndax xol bu leer bi mu am ndax tasawuf di ko leer waaw na ñàkk xam lan mooy tasawuf sax lan mooy tasawuf tasawuf dafa am ay ponk juróom-ñaari ponk la bu ci nekk ci alquran la génne ak ci xadis asumtu yonent bi salaam asumtu xukmun wa qalilun faahiluhu wax bu rafetoon itam bay bay bay xaalis noppi di wurus doomu aadama suñ borom bindu ca lu gën a mën a lore lamiñam lamiñ mooy jëw mooy fen mooy jiñ ci lu dul dëgg mooy rambaaj mooy wax lu mu xamul lu tasawuf ci sharia la ñu dëggee nga téye sa lamiñ waxoon naa sànq ne lamiñ ak bët ak nopp yooyu yëpp bu ci nekk bunt lay sotti ay mbuubit ci ay mbalit ci xol ak ndox yu salte loolu saxaaba yi xam nañ ko ci lañ nekkoon wajuwoon ak xiif ci ponk te suuf la bokk waxu ñu la nga xiif xiif bu metti boo xam ne dootoo xamante li ngay def wala dootoo am doole dangay ngay wattandiku gaay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa mala ibnu aadama wee a ni charan min batnihi doomu aadama mësula feesal ndab lu yées biiram kon ahlu tasawuf buñ boolee ñàkk regaay ci ponki tasawuf xam-xam bu rafet lañu am moo leen ci dugal watinaabal bidaa wattandiku bidaa soxla ma di ci wax tuub yonent bi sax sama dafa ne di leen tuub benn bis rek danaa ci tuub téeméeri yoon kon ahlu tasawuf tuub ñu ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak ci alquran tuub yàlla ak foog bañ a nelaw veillé yonent bi sa alayhi wasallam dafa ne Abdullah ibnu Abbas mu ne ni'ma rajul la ibnu abbas eh, déggee eh, bàyyeetul julli guddi daanaka day fanaanee julli kon ahlu tasawuf foofu lañu ñu tibbee saharu al uzlatu mooy beru te beru dafa am ay charte jàngal masaalikul jinaan bu fekkente ne beru gee ndox mu salte ak mbalit mi ci sa xol moo la tax a beru li maanaam société bi aajo woowu boo dee kuy jàngale wala ngay faj di docteur wala ngay yow rek fi defal jaamu yàlla yi loolu moo ëpp tuyaaba wala nga xam ne yow beru gi ngay beru rëy ak gis sa bopp ëppale sa bopp nit ñi moo tax araam na nga beru bu fekkee ne sa xam-xam matul araam na nga beru bu fekkente ne nag beru gi itam na la jëriñ ay xalaat yu rafet ndax da ngay def zikru ak sikru zikru ak sikru ni ko alquran indee allazina yadkuruna allaha qiyaman wa quudan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi xalqi samawati wal ardi ñooñu ñooy yàlla gërëm zikru ak sikru te doo ko mën ci lu dul beru waaye nag charte yi ngi ci na fekk na aajo woowuñu ci société bi na fekk na jubluwoo ci rëy wala nga xam ne yow li la ko tax a def da bëgg sa diine mucc ndax dañoo ni ci fitna joo xam ne kenn mënatu la garder diineem ba mu sell nga daw kooku ay jëro la ndax inna allazina ko euh, ci surtu imran man naan abdullahi waasi inna allazina tafu malaikatu zalimi qalu fi ma kuntum qalu kunna mustadafina fi l ardi mais ñi nga xam ne waaw kañ dafa am xëy na ci jamono yi jaal doonu lislaam am na mustadafoona yi nga xam ne dañu bëggoon a gàddaay dem Madina fekk yonent bi ñu téye leen waaye dafa diri mbiccam ci keneen képp koo xam ne nekk nga ci euh, mujtama boo xam ne yow mënuloo fee garder sa diine ñu la wa abdullahi wasia su fas yàlla siyaat na demal kooku hijra bu bu war la moom bu farata la moom maanaam euh, os la bu farata la kon nga xam ne yooyu yëpp moo bokk ci euh, euh, arkaan tasawuf nga xam ne benn bu ci nekk ci alquran la jóge ak ci hadis ku weddi tasawuf weddi nga alquran weddi nga hadis weddi nga wax yonent bi sallallahu nga wax yàlla wax yàlla jub jaar ci yoon wi xocc bañ a dëngal bañ a jàdd fenn loolu mooy tasawuf tasawuf yonente bi sax ma def koo tënk an mooy ihsaan an taabudallaah ka annaka taraahu booy jaamu yàlla ne yaa ngi jàndoog moom ndax boo ko gisul mi ngi lay gis mooy al imaanu al islaam al ihsaan xamuñu sax koo ci laaj. ñun na muy àttee lu mu xamul lu mu doon. historien bi mu la critique. mu ne suñu borom yàlla na yërëm Quraysh aalim bi nekk si ñoom dana feesal tibaaxal ard ilman limaamu Shafii lañ ko teg imaamu Ahmad ibnu Hanbal imaamu Shafii dafa gént gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko danaa la yëbbante ci ibnu Hanbal nee ko daañu ko nattu mooy almihnatu bi xalqi quraani bi muy bëgg a ñëw waaye bu mu ñëwee danaa ko yëkkatil drapeau boo xam ne du daal mukk ba yawmal qiyaama waaye waaye ñooñu nga xam ne yàlla gërëm na leen yonent bi gërëm leen ñu ñànk lislaam nga xam ne bu dul woon ak ñoom bu ñu xam lislaam ngay dal ci seen lu ko gën a bon xam nga waaw euh, dana benn na déedéet bii euh, nga wax nag moo sulli ñu gën a laaj ci Malick ah. nga dimbali nu leeral nu lan mooy am ngër ak imaam Malick moom moo doon kan ak mag nit ñi ci Malick ndax jaadu lu nekk mu xam ko maanaam lan mooy kan mooy Malick daal mu dawana mm-hmm. jàngale googu addis yim tibboon maanaam gën a leer googu mm-hmm. nga dimbali ci ndax jaab na nit lu nekk mu gën koo xam Malick ibnu Anas ci taabi taabi'oon yi maanaam génération bi nekkoon ak yonent bi di saaba yi mm-hmm. les compagnons ak génération bi ci topp les épigones ñetti topp la Malick bokk Malick jàng na ci juróom ñeen fukki sëriñ ak juróom Malick def na tashaddud maanaam balay jël xaddis di ci xiyaas wala mu di ko jàngale wala mu di ko jëfandikoo dafa tëral ay charte yu dëgër yoo xam ne fokk xaddis bi matal euh, charte yooyu mu soog koy Maalik bi mu faatoo juróom-benni kees yu mag yu fees ak i xaddis suul na gas nañ ko suul yoo xam ne Maalik mosu koo jàngale te daf ko jëloon Maalik mooy imaamu daaril hijrati mooy kilifa maanaam njiital ilimaane waa madinatul munawwara Malik ibnu Anas ni ma wax ne jàng na ci ñoom ñu bare noonu Malik ci boppam dafay kilifa goo xam ne gii su borom daf ko beral loxo borom daf ko beral loxo defal ko lu ama am am solo euh, ibnu Anas moomu ndax euh, Seydina Malik ibnu Anas bi mu bindee al Muwatta solo dafa tëdd ci mbestalum kaaba gi gént gis yonent bi sallallahu mu ne ko watt lil ummati tawse a mooy lalalal xàllal lalalal fu ñu jaar wala fu ñu tëdd nit ñi mu bind muwatta muwatta mën na am ñeen fukki exemplaire ñeen fukki nu sax yoo xam ne day wuute ay xadis bii xadis yi day ne ci bii te du ci bii lu tax Malik ñeent fukki at yi mu ko jàng lépp day dem ba xaddis bii doyoon na ko doyatu ko ndax xam-xam day yokku toujours muy gis lu mu gisul woon dindi wàcc waaye mu daw wana mooy li mu mujjee tëye nga xam ne moom sottuwaat fi ko ñi mu mujjee jàngal ñoo dajale si leçon yooyu le mooy mu daw Malik mooy sëriñu Shafii mooy sëriñu limaamu Shafii moom wax naa juróom ñeen fukki sëriñ ak juróom ñoo xam ne Malick jàng na si ñoom kenn ku nekk kon Malick jàng na lu bare bare bare bare mais amoon na benn faqih bu mag boo xam ne bi mu faatoo am benn waliyu bu gént ñaari malaayka yi laajte ñëw di ko laaj Malick dal di ñëw feeñ ci bàmmeel bi gëdd leen ne leen kii nga xam ne li ngeen koy laaj jàngale ko lay liggéey ngeen di ko laaj bàyyi leen ko te dem gént nag la ñu bàyyi ko dem lu mu si mën a doon rek wane ne Malik ko am am solo la waaw bu bari waaye ni mu bi sallallahu alayhi wa Malik bu daan jàngale day jàpp ba set sol yëre yu set wecc yi muy soog a lemmi suuru basam toog ci kanamu rawlatu yonent bi sallallahu alayhi wa bu yëkkatee loxoom teg ko ci kenu li nee boroom kenu lii nee mu yonent bi Malik fonk na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba nga xam ne madinatu munawar du ca war fas wala gëléem wala mbaam walla dara Malik dóor nañ ko ci talaaqul mukrahi laa yajuuzu ba mënatu la yëkkati loxo bi ndax ragal yàlla rek ragal naa wax benn it benn fatwa comme ni ko waxee benn gàgganti ci loo xam ne euh, du la am te mu xam ko ci Malik euh, Souleymane ibnu Daawuda benn gouverneur la woon bu nekkoon foofu Madina booba Rachid Harouna Rachid moo nekkoon euh, amirul muminin maanaam mm, président de la république léegi bi nga xamee ne nag Malik comme Rachid bi ñuy jaayanteeg moom maanaam bi ñu koy euh, prêter serment d'allégeance maanaam daal bi jaayonte daal la ñuy wax kii nekk amirul muminin dañuy jaayanteeg moom lañ ko wax mu bàyyi dafa doon am yoo xam bari dafa leen forcé ñu jaayanteeg moom. Malik nag bi muy jàngale am agent secret bu ñëw ñu laaj ko mu sa fase ni dogul ñoom ñu dal ci dégg ne kon te dañ leen a forcé jaayante bi jàpp kon mën nañ ko bàyyi ci loolu la Suleymaan ibnu Daawuda dóore Malik ba mu lot xal ko ci mbaam ñu wëlbati kanamam féetee geenu mbaam mi mu gannaaw bopp mbaam mi ñu jaare ko jaarale ko ci marché yi mu naan ku ma xam man a Malik ibnu Anas ku ma xam xam nga ba ku ma xamul man ma Malik ibnu Anas maa ne talaaqul mukrahi laa yajuuzu ñooñu dëgg ak yàlla jaraloon na leen seen bakkan jaraloon na leen lu nekk Malik nag ko li ñuy wax naqari dat maanaam toog na ñeen fukki at réewul ree du ko def ndax ñàkk caaxaan mu ne toujours fi muy jàngalee ci rôle fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci kanamam lay nekk euh, euh, sooroor bi këru bi nekk nii ci càmmooñam daf naan jëpp aji wax dafa am lu ñuy jàpp ci waxam ak lu ñuy bàyyi ba mu des borom rawlatu bii muy yonent bi sallallahu alayhi wasallam Malik ibnu Anas bu ma continuer ci ay xar baaxam ak bu baaxam dana gudd lool quoi am am solo la doy na la rek Sénégal ñi fi nekk ak li ñu am ci xam-xam ak ni ñu xamee yàlla ak ni ñuy deewaar ñoom ñëpp du du ñooñu rek demal Espagne ibnu Arabi Muhyiddin ibnu Arabi moomu maliki maliki yi kenn mënu leen a ci ci ci ku mënoon awliya yi awliya yi bari na ci tubaab ñoo xam ne maliki ñeent ñooñu ñëpp kenn ku ci ne am nga ay taalibe ci wàllu yu mag yee mag a mag malik ah, limaamu ahmadu si abdul qadir jilaani kii la xambali la si limaamu ahmadu la topp mooy mooy imaamam ci fiq moom euh, ki ci des limaamu Shafii limaamul Xasaali ñu ñëpp ci Shafii la ñu ne donte imaamul Xasaali léeg-léeg mu wuuteeg imaam Shafii comme ni nga xamee mu wuuteeg limaam Ahmad ibnu Hanbal et cetera et na ci ñoo xam ne nii maanaam luñ def ci lu baax. bu bii àggee da ngeen jégal waaw. lu bon maanaam duñ ko fàtte mukk te luñ def ci lu baax fàtte ko ak euh, nee na mm-hmm. euh, dafay laaj maanaam ahlu suufa ñoom ñooy ñan Mm-hmm. ak yan saa sam yan kéemaan la daan wane ci ñoom ndax dafa dégg ni mm-hmm. ñu ñàkkoon la. <laughs> li ma njëkk a wax moo leen la ci sax fàtte naa ko man. doomu aadama lu mu def ci lu bon maanaam. waaw du ko fàtte. nit ki. Mm-hmm. def ci bon. am na ci lu mu war a fàtte am na ci lu mu lu mu warul a fàtte. fàttaliku ngir tuub ak ngir ragal ngir tiit moom lu rafet la daanaka farata la. li nga def nag ci lu bon nga de ko fàttali di ko bàkkoo ni ki diw sàngam ba mu la tooñee nga def ko nangam loolu pour fàttali ko la diw sàngam bi nga xamee ne dégg nga fam naa alalam ji mënu cee dara mënu cee jot mënu ci dara nangam ak nangam yooyu day wowal xol day créer ak mbañeel yooyu moom lu ñu war a fàtte la moom waaye nag fàtte li ci bon mooy loo war a tuub fàtte ko ba doo ko tuub waaye lépp loo xam ne lii boo ko fàttee dana far yu bari da ko war a fàtte kon warulooy fàttaliku lii ñu la tooñ ndax day sabab ak noone sa digganteeg ñooñu lu ñu la tooñ moom danga ko war a fàtte li nga tooñ yow nga ndax di ko tuub ak di bu fekkee ne ki nga tooñ nekku fi nga di ko ñaanal bu faatoo nga di ko bu fi nekkee nga fexee ba balu ko xaq nit kon li mu def di ko fàtte bu dee lu baax ci la gëne ndax du ri du gis boppam du teg boppam ku mën a jaamu yàlla ku am solo lool ku ku kawe ku foor kon ayib ji ci euh, ba fàtte loolu la gën lu baax li waaye lu bon li moom bu fekkee fàttaliku gi day tax nga tiit di jéggalu nga ko war a def sidna Omar radiallahu taala anhu ci sulxul xudaybiya sulxul xudaybiya sulxul xudaybiya bi nga xamee ne yonent bi salaa dafa géntoon dugg màkka xam nga comme ñoom rek ba ñu gëjee màkka yàgg na mën nañ màkka te kilimaawu madina jigu leen ñu ngi sibru di am ay tawat yi ñuy def ak yi xamul seen xelit di dellu ci màkka nañ mën ñuy way sax di way màkka ak ñax yee fa sax ak buñ fa nañuy kañ lañ fay delloo teeg yooyu bi sallallahu alayhi wa sallam nag léegi di euh, dem màkka mu wër kaaba gi ba mu leen ko waxee ñu ne kon dañuy umra ji bi ñu déggee yéefari màkk yi yëpp ko yeble ne leen dee te mënul amuñu ci te ci ci sunu sañu la bañ ku ñëw mu won la la léegi ñun ñëwunu ngir xeex ñëwunu ngir xuloo danoo ñëw ngir néegu yàlla bi lañu bëgg a wër te néegu yàlla bi kenn amul sañ-sañu tere ko kenn ñu bañ na ko ak lu mën a doon daal duñ jëgg mukk ñu naan Muhammad sallallahu alayhi wasallam dugg na euh, Màkka yónni ñetti ndaw Suhayl ibn Amr bi nga xamee ne signé na ak yonent bi la nga xam ne moom lañu ñu d'accord d'accord booba bokk na ca wax naa ko lu yàggul sax defe naa ne xalaat soxlul ma cay dellu euh, bokk na sa yow Muhammad sallallahu ku dawee ci yow bu ñëwee nun dañ koy téye waaye ku dawee ci nun bu ñëwee ci yow delloonu ko dàq ko fekk fukki at lanu fasante duñu xeex duñu xare nun nun waa Màkka ak yéen waa Madina waaye léegi nag bu bu bu loolu wéyee yow ñëw ak ñi nga àndal nun ñi nga xam ne nun ñoo nekk Makka da ngeen ñëw déwén déwén ngeen di dellu si bu ngeen ñëwee du ngeen indi benn gàddaay gànnaay lu dul euh, jaasi ci mbaram bu ngeen ñëwee daanu génn Makka wàcc koog yéen ñetti fan ngeen nekk fi wër Kaaba gi def lu leen neex ngeen dem. ah naa Omar ne waaye ñii daal li ñu def dañuy fonto xanaa ñoom dañoo jàpp ne gën wala ñoo nu ëpp ñoom ku dawee si ñoom bu ñëwee nun nu delloo ko ñoom ku dawee si bu demee ñu téye ko. sidna Omar bu jaaxle waan ci sidna Abubakar rek lay dem eh, amoon na benn benn waay ñu daan jàng fële mu bu tuddee sidna Abubakar mu ah ndongo na ma ngeen naan posen Abubakar mi ngay wax ndongo la Omar mi nga gën a naw Abubakar la gën a naw ci àdduna te sidna Omar mën na eh, Abubakar mën na yonent bi xamu ko Omar xamu ko Ousmane xamu ko Aliou xamu ko ba tey jii wencam siècle fin wencam yow nga xam ko su fekkee yaa dof sidna Umar bi nga dem na ci sidna Abubakar ne ko waaw ñoom ñun du ñun ñoo ne ci dëgg ñii ci caaxaan lu tax ñu di nu féetale di seen bopp ko gis nga seede naa ne kii yàllaa ko yónni ah man itam seede naa ne yàllaa ko dem ci yonent bi ne ko waaw du ñun ci dëgg waaw du ñoom ñoo ci caaxaan lu tax ñu di nu féetale suuf di féetale seen bopp kaw mu ne ko Omar yàlla ak bu yonentam bu ñu dogoo ci leen amuloo xaqi di ca di ca euh, opposé nee na bis boobu dama tiit bay lox ñaq wu sedd laa génne boobu ba fu ñu toll fu ma toll di ko fàttaliku di tuub di baril sama julli ak sama koor ak sama yeneen jaamu yàlla ndax suñu borom baal ma ko kon fàttaliku loola loo xam ne rëcc na te muy lu garaaw nga nga def ko di ko fàttaliku am na njëriñ ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nit dana def bàkkaar bi bàkkaar bi yóbbu ko àjjana ñu ne ko yow yonent yàlla bi loolu nan mën a demee mu nit ki dafa bañ te def benn bàkkaar ngir tiit defe ne safara la jëm di yokk ay jaamu yàllaam di yokk ay jaamu yàllaam ba suñ borom far li mu defoon lépp ci lu bon tuyaabaam bari mu mu dem àjjana kon nit ki li mu def ci lu mu na koy fàttaliku ngir mu jëriñ ko ah, li mu def ci lu baax nag bu ko dee euh, wan ne ak rëy wala mu defe ne moo gën kenn lu daf koy lor na ko jéem a fàtte moo gën du noonu la tolloon ahlu sufa suffa ak suffatu mooy gis nga mbaar ni jàkka jàkka jàkka ji dañu xaddoon lii rek lii jotaguñ ko xadd ñi nga xam ne nag bu ñu jógee màkk dañuy tumuranke nekk doxandim daal yoo xam ne amuñ sax naan fu ñuy dëkk yooyu ñuy fanaan foofu fi nga xam ne am na lu ko tiim xadd nañ ko ñooñu lañ tuddoon ahlu sunna ahlu suffa wax ba tey yaxsibul jaahilu wax ne amina taaf fi taarif bisimilah laa selu naas ilaat ma fu mu tàmbalee te les sale ku démb laa ko demee sam tukul tukul tukul tukul taxaw ci lam tukul lil fuqaraa allazina ahsiru fi sabilillah laa yastatihum darban fi dad yaxsibumul jaahilu agniyaa amina taafufi taarifum bisimam laa yasalu naas ilhaafan moo ahlu sunnati ahlu ahlu sufa boobu waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah jéggal leen waay bisimilah xëccal leen mën a